me nomme euh, Diallo Ba a Tankanto Escale euh, damay wax ci wàllum hôpital bi ñun fii jafe-jafe am na trop benn amuñu garab garab amu foofu man mi dama amoon barke démb sama doom bi dafa feebaroon ma yóbbu foofu sama doom ñu bindal ko ordonnance munu ma am ordonnance ma dem saaree ba jëndi ordonnance man mii dama dem ba foofu ma ne leen hôpital bi doxut infirmier bi tamit boo demee ba foofu nga ne ko mu faj ma def may ne moom wàcc na te ñun une première fois ñun dañu bëggoon ñu wax monsieur le maire pour ñu ñaan ko mu génneel ñu infirmier bu nekk fii boobu nekkul di liggéey wax ma fi affaire affaire politique de man lu leer laa la bëgg a wax nii fii boo amee fii urgent bala ngay balaa ngay yóbbu sa sa feebar eh, sa kii sa doom bi wala sa sa jabar bu feebaree bokkol la da ngay am problème mun na nekk mu dee sax fii hôpital bi doxatul waxuñu waxuñu nag ci monsieur le maire moo ko def wala kii mais ñun population bi dañu bugg a ñaan monsieur le maire ñu dimbale util ñu garab ou bien ñu ñu xool solution lu ñuy def pour hôpital bi liggéey parce que fii boo feebaree fii balaa nga egg Kolda da ngay am problème. beneen yoon nga dem si hôpital fekk ñu saa sage-femme bi nekku fa wala damaa jàpp est-ce que loolu baax na si hôpital damaa jàpp walla génn loolu baaxul affaire kii itam nga indi sa doom fekke da sa doom bi dafa feebar wala sa doom jekke dafa feebar ambulance bi Saraba bi mooy ñëw walla bi Kolda bi suñu ambulance bi baaxul garab amul si hôpital bi problème ndox bi ngi si hôpital bi loolu yëpp am na si hôpital bi problème ndox problème garab amul foofu vraiment jafe-jafe bi sa bare na parce que fii depuis waa ñaanga fale Guinée bi sa fépp yëpp fii la ñuy ñëwoon léegi kenn du ñëw si hôpital bi yëpp Kolda li ñuy dem wala Saare ba problème hôpital bi hôpital bi abul garab amul garab am na ñuy wax ordinage bi dafa seer foofu ñuy tey ñuy dem Saare ba wala ñuy dem Kolda am na ñuy wax loolu am na ñuy wax fekk garabu nekk fa boo demee ñu ne garabu nekk fa ñu bindal la ordonnance nga dem Saare ba wala nga dem Kolda nga mun am ordinage bi maire bi bu ñu waxee maire bi dimbal ñu garab si hôpital bi maire bi ne yóbbu naa foofu garab garab yu demee nag ni xamuñu ko bu demee xamuñu ko bu demul xamuñu ko boo waxee bi garab amu si hôpital bi dinaa yóbbu fa wala mu yóbbu bu ñu yóbbee kenn xamul laa vraiment fu mu nekk loolu kam loolu kam am na foofu rek donc kam jafe-jafe xeexoo ñu ngi ko wax di pour ñu dimbal ñu fo garab bu ñu amee foofu garab kenn du dem Kolda waa Guinée Bissau fiif yëpp foofu fiif la ñu ñëwoon mais léegi yëpp Kolda Kolda ni ñëw wala Saare commune bi fii fii lañ nekk Saare Dikoori hôpital bu nekk fii ñun yëpp fii la ñuy ñëw te hôpital fi ngay hôpital bu fi nekk ku ñëw fii faju bu ma ñemee ñëwee faju ordonnance bu ma am kale tamit loolu lay am te fekk feebar bi du benn man ni sama rakk bi feebaroon na fii fan yi paase ci hôpital fii dina dem ñu bindal ko ordonnance xam la fan la am wér-gu-yaram saare yo ba jeega ci fajar bi googu guddi boobu ndax feebar fii mu sonn fajar tal lañ ko yóbbu saaree ba fale si caminteer bi foofu la am wér gu yaramam bi te ordonnance bi ñuy jënd comprimé bi fii mu ngi fii tëdd bi tey si néegam fi ñun kay wàllu hôpital bi dañu am problème bu rëy parce que boo amee ku feebar boo amee ku wësin boo amee ku blessé loolu yëpp ay problème la balaa ngay utti fii moto nga dem saare ba wala Kolda problème la bu dee bu bu dee nekk na xaaju guddi loolu problème la boo amul oto nan ngay def sa sa malade bi sonn la. nous sa un poste de santé qui couvre 79 villages tey si vous avez voyez notre commune la commune bi dafa frontalier avec la la Guinée-Bissau tey commune bi bi commune bi moo frontalier avec la région de Sédhiou ça que ñun commune bi tey euh, euh, dafa nekk euh, kii situation géographique boo xamante ne. c'est essentiel parce que même les populations de la Guinée-Bissau yenn saa dañuy traverser frontières yi ñuy faju on peut pas comprendre que une commune de 79 villages tey si tu te blesses mënuñu assurer les soins primaires c'est déplorable vous avez commune de Sareba Sareba dépendait de Tonkante Escale mais on peut pas comprendre aujourd'hui même si on est malade on préfère aller se soigner à Sareba ou à Kolda laisser notre hôpital ici parce que pourquoi léegi la faute si c'est le personnel médical xamuñ ko si c'est les autorités xamuñ ko nous ce que nous que ñun suñu hôpital bi vraiment ñu relever tuuti niveau niveau kii bi niveau niveau plateau médical bi loolu la ñu bëgg si si suñu hôpital bi parce que nous souffrons hein nous souffrons énormément si hôpital bi nous souffrons amuñu hôpital bi amul dara te muñu bu ñu feebaree suñu yaay yi suñu doom yi suñu papa yi dañu leen di génnee fi yóbbu Saare ba wala Kolda te ce qui est déplorable diggante fii ak Kolda ça fait 17 kilomètres te munoo dox fii wala nga uti moto ku feebar est-ce que mun na toog ci moto ambulance bi tamit baaxul ñu ngi ko doon defar mais baaxul ba léegi fii balaa ngay am fii ambulance il faut nga woote Sareba wala Kolda. ICP bi benn benn ICP titulaire moo fi am ak dafa am benn adjoint dëkku fi elle est là elle est là temporaire moom elle bouge trop c'est une femme elle pas disponible. man nekkuma fii di politique wala du keneen mais je dis la vérité elle n'est pas disponible amoon nañ fi kenn kooku moom kooku góor la woon il il était là avec sa fami il était disponible soo fa demee mu accueillir la mu faj la kooku yàlla def na jëlee nañ ko fii ñu indi fi benn daam daam boobu bëgguñ ko fi pour dire vrai parce que bu fekk c'est pas question que dañ ko bañ mais du def liggéeyam nu ñu ko waree elle n'est pas disponible. boo amee boo gisee nit mu ngi dox mbaa mu ngi def lu mu bëgg dafa am wér gu yaram. loolu bu ko amut lan lay def coono la te ñun nag avant ki fi nekkoon bu dee xaaju guddi nga ñëw fogg day jóg mu la sa garab te man nag kii wax dëgg yàlla depuis mu ñëw fii benn yoon laa fi ñëw li ma si gisoon sonatuma sama bopp bu ma amee sama xaalis maa ngi dem saare ba mbaa Kolda dama dem fa juji lu tax coono bu ma gis foofu balaa ngay jógee sa dëkk ñëw feneen pour uti sa garab sa garab boobu doo ko boo boo fu demee ñu bind la ordonnance doo am foofu sa garab bi da ngay yekkat tamit sa xaalis dem feneen fay sa sa fay sa paas nga dem jënd ji doo doo doo bàyyi boo feebaree defal li nga war li la war nga dem faju saare ba Kolda foofu moom boo demee faju dangay am sa ordonnance boo loo amu ci hôpital yaa ngi dem pharmacie kon nag fii loo war am ci hôpital bi doo ko am nga dem jëndaat ko si pharmacie nga jëndaat lépp loolu problème la boo feebaree nga dem benn yoon fi nga war a dem nga am sa faju ji sa am sa nga am sa wér yaram foofu moo gën balaa ngay sonal sa bopp ñun de fii commune Tànkante Sugal dañuy sonn ñi fi waroon ñëw lépp Kolda la ñuy dem fi ju Bassare Yoba fii gannaaw gi frontière Guinée Bissau lépp dara dara nee naa li ma war a faju man bu keneen feebaree bu mu demee li ma compris bi ma am kale tamit loolu lay am lan lay njëriñ fekk suñu feebar nekkul benn même ordonnance loolu lan lan la njëriñ lan lay njëriñ nga jëndaat fii sa ordonnance bu seer nga jogaat foofu loolu du la faj nga demaat feneen tamit loolu coono la fu ñu nekk nii balaa loolu dat doo dem fi nga war a faju nga am sa wér-gu-yaram foofu ngay dem sata doo bi tamit ça cinq ans liggéeyul xaw ma lu nekk wax dëgg yàlla mun na am na ñu koy nex machine problème machine am na ñuy problème batterie su fekkente ne problème batterie batterie kese kese batterie batterie kese kese rombul cent mille francs ama loolu tamit problème ndox bi moom man je me rappelle que bi ma nekk ndox bi kii grand bi nee na sànq fii cinq ans je pense que affaire bi romb na cinq ans ñun moom dañoo am euh, infrastructure bi lañ fi am mais njëriñooñ ko benn genre statut la fi nekk doxul deful dara ñun ma xamuñu luy robinet ñun suñu suñu yaay ci tenn rek ñu root yàlla daf ñoo jàppale euh, nos éleveurs là ñoon seen seen nag yi seen ci bi la ñuy naan si fleuve bi fii nii am nañ fi fleuve loolu moo ñu jàppale bu doon loolu moom lamba day ñaaw robinet ñu du ñu naan fii ndox robinet grand man du ma la fenal ndox teen la ñu dund ñii yëpp mun nañu ma seedal di ñuy dem fii si dëkk bi wutu ndox indi si kër gi ndox bi ka moom am nañu teen mi ndox bi neexul neexul di ñuy dem wutu ndox bu neex sato bu mu ngi depuis loolu ëpp na sa duubi sapp ëpp na loolu depuis sato bi paan ba léegi wax nañu maire depuis maire bu nekkoon fii defal ñu paan ñu ne machine bu moo baaxul dete batri bu moo baaxul ñu indi nit yi ñoo ko bu ñu demere rek ñu ko gisaate ba bi maire bi ñawee boo ko te keroog ñëw na fii mu ne mu day defar sato bi ba léegi sato bi deful dara doxul dara ñun sax bu sato bi doxul baax nañu ñun jigéen mun mën nañu def sardine foofu yëpp fii àll bi la ñi defoo sardine liggéey foofu mais ndox satu bi baaxul wax nañu depuis premier maire bi ba léegi mais deuxième maire bi de dara surtout bu ñu amee robinet robinet kay yëpp yi ñuy taxaw si yoon yi mais amul ndox amul ndox métti il def poli nga mun a root boo deful pon boo koy jàppal si mu eh op mm, mm. soo ko am problème damit o gaynata ɗumen ndox bu sel loolu amatul fii te yàggan loolu amatul fii ndox bu sell la xanaa ñun bu ñu te ñu defar ko suñu bopp kon nag xam naa ne lenn la ñun jigéen yi daal sonn nañu parce que loo xam ne li 20 mètres ba 30 mètres loolu boo koy xëcc yow jigéen fekk defoo ko puli da ngay sonn bu dee amoo xale yu jigéen bu dee amoo doomu góor yow jigéen bi noo koy defee jigéen ñi sonn nañu sonn nañu commune Tankanteska dañuy sonn de. yow fajar. booy sangu foofu la booy loo mënta def xam nga kay jigéen moom ndox rek loo mënta def foofu il nga jaar si ndox ndox bi nag moo nekk jafe-jafe nit ñi ndox bu sell si robine kon ci teen bu dee amoo li nga palaatoo boo xam ne lii ngay tojee teen bi est-ce que foofu ndox bu sell la nii la de nit ñi nii la ñu dindee ñun kay suñu autorité ñu defar ñu château bi ñu defar ñu château bi defar ko ba mu baax fekkente ndox du manqué hôpital bi tamit ñu indil ñu garab fekkente doo dem fii ba Kolda wala ba Saaree ba ñun bu ñu amee loolu dañuy sant yàlla. après hôpital bi ñu jàppal ñu comme que am nañ déjà château bi ñu defar château bi. suñu autorité yi jàppale ñu defal ñu château ñu au moins bañ fi nekk benn genre statue wala ñu defal ñu suñu bi chaque fois on dit problème batterie la problème moteur la mais je pense que lii autorité bu ñu ko seen fulla fekk defar nañ ko bu yàgg ñu dimbal ñu hôpital bi ah ñu dimbal ñu château bi ñun tamit ñu am robinet su nekk si bunti néegi kër yi am ndox ñu mën a doom root foofu